sama mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen euh, ziar ñu ngi fii ci Cambérène 142e maanaam téeméer ñeent fukk ak euh, ñaareelu appel Seydina Limaamu Laay Al Mahdi gannaaw bi nga xamante ni toog nañu daaw amul ndax la ko sabab rek moom mooy jàngoro bi jàngoro bi moom duñ ko tuddati nañu dëddoog jàmm na dem ak jàmm bàyyi ñu ci jàmm ak salaam kon lii bu amee dañuy sentir ne diine gi dafay gën a dund dañuy sentir ne mbégte dafay am. dañuy sentir ne ki nga xam moom mooy kilifa gu tedd gi Seydina Limaamu Laay al Mahdi am na loo xamante ni def na ko ci réew mi waxuma la Cambérène waxuma la Yoff waxuma la feneen ak feneen mais ci biir réew mi taalibe yi bàyyeekoo fu ne ñëw fekkee si appel bi ren dafa mel ni kii manqué na leen woon xam naa dañuy dugg ci biir taalibe yi waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne moom mooy ahlu bayti gi ñu xool naka la ñuy dundee cent quarante deuxième appel bi nga xamante ni tey ñu ngi koy màggal gi. fii ci Cambérène la Ablaye Seydina Ya Moussa ak ki nga xamante ni euh, moom mooy góor gi moo nekk ci caméra bi kon dañuy ànd ak yéen ci appel bi wuy si yàlla na la yàlla def lépp saawaan baawaan. di la ci bés bu tedd bi. Ah. ren lan mooy yëg-yëg bi foog naa appel bi manqué na leen woon en tant que taalibe. waaw neex na trop neex na trop vraiment appel bi moom gars yi namoon nañ ko de bëggoon nañ ko de parce que toog nañ ay presque lu yàgg te ñëwul. comprendre kon bu amee nii kon dañuy kontaan ñu ñëpp ñu ñëpp fi mu nekk nii suñu xol yi sedd na quoi. waaw alhamdulilah laay Mokhtar laay Alassane yéeg-yéeg bi foor na trop ndax euh, malgré pandémie bu fi jaaroon muy Covid bi looloo taxoon euh, gars yi respecte mbir mi ba bañ a population bi. alhamdulilah affaire bi wàññeeku naag doole waxuma la dañ na looloo tax nag ñi defaat appel bi macha allah àddina bi yëpp ñëw nañ comme nun ko daa defee rek yaakaar naa ne bii mooy cent quarante deuxième appel de Limaamu Laay al Mahdiw kon nag alhamdulilah mbir mi rëy na àddina bi yëpp ñëw na teew si. maanaam yàlla rek. julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di ñaan ci yàlla rek mu yàgg koo teewe. te luñ ci ñaan yàlla nañ ko yàlla waaw ndax fii moo xéewal kese la xéewal kese la waaw na li mu amul woon yëpp xëy na loolu la yàlla dogaloon léegi nag ñoo ngi ñaati yàlla rek lu mu feebar yeeg musiba yeeg yëpp rek yàlla ko yàlla dindi ba mu set ba nga xam ne bu ñëwee rek yàlla may ñu luñ ci def bu saawaan ba baawaan mu mel ni kii am na loo xam ne tamit appel bi bu ñëwee am na tamit lu muy mën a def ci biir réew mi ci wàllub ñaan ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay ngëneel la. waaw loolu moom loolu moom bu ñëwee moom vraiment day day indi loo xamante ni lu neex lay doon daal lu saawaan maanaam day doole war xel si yàlla quoi. vraiment vraiment lii war fi si dafa war di am même bu doon sax leneen sax dafa war di am parce que lii nii bés bu màgg la. comprendre nga loolu la ko quoi vraiment lii moom day tooyal xol yi ba pare ñaan gi voilà gën a saxal diine bi ñaan bi baax na si trop vraiment ñëppay da ngay gis ñëpp ñu sol lu weex day nekk affaire boo xamante ni day delloo sa xel si yàlla quoi. ren si kilifa gu mag gi kilifa gu tedd gi dem fekk ji euh, kilifaam fële nga xam ne moom mooy ca aljana euh, ren ki nga xam ne moom mooy doom wutu ko ci jal bi alors manqué na leen ren wala. waaw alhamdulilah euh, yàlla lu mu soxla rek noonu la gannaaw yonent bi moo xëy na mes. Euh, Babacar xëy na mes yaakaar naa ne kenn du fi dem kenn du fi des euh, kilifa gu mag yi dem na sa kanam baayam dem na sa kanami maamam dem na sa kanami waajuru dem na sa kanam yónnent ba alhamdulilah loon koy sante yaakaar naa ne fii moom alhamdulilah waxoon na ñëpp matal mais ku dem rek alhamdulilah ñu fi toogit ñi ngi def seen war gor matale nan ko macha allah lay maxtaar noo manqué ne leen kay manqué ne leen bu baax a baax a baax mais sant yàlla rek sant yàlla rek sant maam li ma am sant yàlla rek waaw sant yàlla rek wallaahi wallaahi yëgal xol yi yëngal xol yi yëngal yaram yi yëngal yëpp wallaahi xanaa sant yàlla rek wallaahi sant yàlla rek yàlla nañu yàlla nga fekkee rek ay déwén yu bëree bëree bëri barke Seydina Muhammad